mi nga xam ne ci dundug jullit yi mu ngi mel ne ndox mu neex ci ak wér wala boog ngelaw liy dem di dellu si nit di ko jël di ko noyyi kenn mënu koo ñàkk du ñu léeg ba ab nit ñi di ko waxtaane waaye lim boo gis day am jàppal diw bokk yi bu ñu duggee ci weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci moom la yàlla jaarale wan bindeef yi ana fu ñuy jaar ëllëg ba mën a mucc ne ko yow mii kat yowee ki nga xam ne ku la xool gindiku ni làmp guddi bu ñu seen ci ci àll bi taxawul fu mu fu bu seen làmp buy tàkk wala taal bu ko wóoroon ni nite ko taal moo koy gindi rawati nag ak leer moo tax mu ne ko innaka la tahdi ila siraatin mustaqim siraati llahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard lu tuuti ci lu bari ci yonent bi sallallahu si ca weesu xamle tuuti ci ne ku yàlla jox azama la azama nag mooy grandeur mooy koo xam ne su àndeek aw nit duñ ne moo la ko làq waaye bu ñu sit tax ca kawit bañ naan ma nga nële di tudd waaye bu agsee danga xam ne waaja agsi na yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam doy na ci sëkk firnde nit ñi gën a siiw ci àdduna bi moo ci gën moo gën a siw foofu li ñu koy tudd tudd ko kenn bokk yi ku ne ci ab dëkk boo xam ne lu mu néew ay jullit nga fa da dégg ay yoon yoon bu ñu tudd yàlla teg ko ca bu ñu nopp ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ku déggutu war dit tey julli moom kenn tey góor bu liqaamee dana ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon ñi ko umpale bëreetuñ xanaa ñu jël ci jikkoom ya ak melokaan ne leeral leen ko waaye tur yi moom dara nag kat fu nit nekk ma nga fay jolli bokk yi ku déggutul noddu li xaamut it buy taaya dana ko tudd faw ci taaya ji muy taaya ñun dana dana ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam ba mel ne aw turam daj si bokk na ci li ma tudd léegi muy tedd nga am nga xam ne mooy sut waaye kenn du ko sut di grandeur yàlla daf koo boole daa boole ci gëm ko gëmaale yonent bi gëm naa yàlla daal yam ca faaw ñu laaj ko noo def ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko ca boolee yàlla soog a nangu ne ak gëmam wér na ci jamono ji ñu toll ba ba muy sopp suñu borom ba mu ñëwee moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ba ba muy sopp suñu borom li fekk adduna ngi fi loolu mooy dox kuy tudd ne gëm nga yàlla faaw nga tuddaale ko ca waaye nag noonu ko yàlla tànne ci biir jaamam yi ndax nee na moom tur bi gën a rëy ci moom euh, gën koo neex benn bokk na ci ba ko suñu borom woowee fa mu ko woo jox ko fa la mu ko jox waaye ba muy nekk ci nit ñi yàlla moom ci nit ñi li mu ko doon doye fa mu tàmbalee nee na moo ko ci gën a neex lépp ko neex waaye loolu moom du ko fàtte subhaanallazi asra bi abdi abdi bi mu ko wooyee nee na moo ko gën neex ci li koy neex moo tax bokk na ci taraanga ji ko suñu borom teral woo ko woowal ko boppam teralal ko boppam lu mu mus a teral kenn te dootu ko teral kenn waaye jox ko itam ay kawtéef yu lott lool ñépp euh, bokk yi ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa kenn nga dégg ko ñu ne doj yi dañ daan wax ak moom jamaadaat yi yi nga xam ne duñ dem duñ dikk boo demee ci Muhammad al Busiri wal jamadaatu afsaxat billadi uxrisa li ahmad anul fusaha am na fenn fi mu wax ne warawadatu ljibaalu summa min dahabin an nafsihi fa araha ayama chamami doj yi ñëw nañu ne ko kat lii nga nekk metti na ci ay coono dara du tàkk sa kër tey nga nooy tey nga toj ay lenn leen dem muy wurus nga dem jaay ko am loo dundee mun a jomb naa ko ku yàlla terale li ma terale toogal rek di xaar yàlla yàlla fàtt du la fàtte euh, mu ne sëriñ bi bind ne borom Tuuba minha salaamul xajari alayhi masyu ak sarax mu tasiiru su fekkee li ngay wax ne yàllaa la ko yónni na garab gee ñëw mu ne yàlla garab gi ne ñëw garab gi ne dar dar dar ba ak si fekk leen fañ toogoon ñu ne ko su fekkee li ngay wax noonu la demee xaral ñu weer wi ñu gis ko mu ne yàlla yaa moom weer wi yaa moom jaam ñi yaa moom yónni si ñoom ay ca lay wane tàcc xar iqtarabati saatu wan shaqa alxamar moo tax mu ne minha salaamu alxajari alayhi mashu sajari lahu inshiqaaqu alqamari bi dil baqa walqidami def nañ ci aw ñamit loo xam ne liñ ci ku ko jëfandikoo tey doomu du ko nettali ba mu ne jëyi loxoom jëm ca ñam wane ko dañ maa tooke moo tax mu ne sumia tasbixu tasbixu taam fi kafi afdali l anaam xitaabu dabyin bi kalaam mujizatun muxtaramin kéewal goo xam ne ab rëbb da ko jàpp mu romb yonent bi kéewal gi wax ak yonent bi te waa ji yëgu ko mu ne ko mu nii dama yóbbu waaye na ma bu ma mën mën a am sama doom rek sama xel dal yonent bi wax ko waa ji waa ji bëgg a jiital mu ne ko loo koy wecc koo mu wax ko ko mu jox ko ko bàyyi ko mu dem yoonam xitaabu zawjin bi kalaam am na it biñ tabaxagul ma Madina ëkk goo xam ne dafa daan taxaw ñuy dafa daan jekki bu toogee ba yàgg mu jekki ñu yaatal jàkka ja tuxal minbar ba ëkk ga biir ni ba ñëpp dégg ko waaye xamuñu lu mu mu ne lu mu mu ne loxo ba mu daan tëj ci sama kaw di ko tegg bokk yi nag kooku dafa mat di waxtaane loola ci moom lañ ko mos a dégg donte am nañu yàlla yabaloon bu njëkk Seydina Isa alayhi salaam ak ña ko jiitu woon xar baax yi nag ñu def ko ay mujizaat di laal nit muy wér laal seen maxamu xool wax loolu nit ku mëntoon a wax waaye bi ñu nag ci la yëf moo tax ku ñuy wax Abdullah ibnu Salaam ba muy laata dugg ci lislaam daa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ràññiku lool ci nit ñi mu xëy yàlla ko lool ne ko dama dugg ci lislaam mu ne ko ayca mu ne ko waaye li ma ci tax di dugg kat dama gént gis la kama gisoon ca gént ga ki ma gis ko gën a leer xar kanam moo ko gën a am fasaaxatu lisaan ñu ne ko yow li wax ci ma mel ku ko mus ku ko xamoon ay ati at moo leen xar kanamam bi laa xool xam ne lu mu wax dëgg la xar kanamam bii laa xam ne lu mu wax dëgg la moo tax bu ñu ci mbindum sëriñ sëriñ bi borom Tuubaa dama ciy jël rek juróom benn bayit yoo xam ne dana teg ca la ne ka wax ci moom lii kooka ku mat di waxtaane la bu weeram bu gusee doonte waxtaane ko ak lépp la war waaye rawati ca nag am na ci xasidaam bu ñu tënkee arrahmaanu rahim bokkut ak yaa rahmaanu yaa rahim muhammadun zinatu dunia wa lazatuha salla alayhi lawi lbahrayni qad maraja nee na muhammad salallahu alayhi wa sallam mooy waajtaayu adduna ku ko ku ko waaja foo dem wàll maanaam ku ko wàllee ku ko waaja foo dem yaay daan nee na lu gën a neex ci adduna mooy bëgg Seydina Muhammad mooy bànneex dëgg-dëgg boo xam ne bii bu dee lu ñu def ci gémmiñam la du sàppi saa bu taqamte ko mu gën a saf lam doon saf muhammadun zinatu dunia wa lazatuha salla alayhi alladi albahrayni qad maraja waaye am na fu mu waxee ne samam koom bu ko nit jàppe lenn lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa am doy na ma sëkk ndax kat kii def ci xolum nit bëgg ak bañ ku mu def ci sab xol bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na la loo xam ne kenn mënatu koo am ku dul ku mel ni yow ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi loolu mu ngi la ci xasida goo xam ne mu ngi tudd futuxul mukarrimi fi amdaaxil mukarrami waaye am na loolu mbir yoo xam ne moom wax na wax nit ñi wax nañ ko lu bare bare bare bare bare waaye ba mu ko waxee ba niñ ko noppee gis foofu la nekk biir moom muy nekk ci xasida goo xam ne aayab laqad jaakum la ko tënke rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufun rahim nabiyuna almustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa maa yabaahu abaahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngeen ji bindeef mooy sama xeymemtéef foo ma séen ma jëm fa moom laa fa dégg di ko wëri donte fa ma jóge it yëfa ma fa ne waaye foo ma séen daal loolu wóor ne tànk yi may dox doxuma tànki Euh, dem ci xew lii xew waaw waaye nag la ma tax a jóg mooy xeñtu mbooram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ak lu a doon rek lépp lu yëngu rek sama xeynam téef ak lu ma a doon waaye ci la sukkandiku it ba lu mu bañ bañ naa ko lu mu bañ rek bañ naa ko nabiyuna al mustafa xayrul xayrul garadi fi kulli cheyin wa ma yabaahu abaahu lu mu bañ bañ naa loola waaye nee na it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee am naa lu may lu may zikr moom la ndax mooy sama wéttal ci lay bëgg ku ma bëgg ci nga may bëggale mooy leeral sama xol ak mooy sabaloo samay cër bu may dallu ci lay dallu ci xent moram muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaai wa raaxaati loolu mu i nekk ci xasida goo xam ne ñu ngi ko tënki jaalibatul maziyaat wa daafiatul wa daafiatul raziyaat fi mat yi xayri bariyaat waaye am na fi ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam mooy sama mbégte waxtu bu mën a moom nett lañ ci nett yu wér ne weeru gàmmu bu masaan teroo wala weeru koor su weeru gàmmu teroo loo wax mu ne teluñu dara xanaa weer bi jàll lu sax mu bàyyi de waaye ma ngay waajaat déwén waaye bu weer ko teree mu ne buy jub mu ne xam teluñu dara ndax gan gi jublu si buñ ci nekkee mu ne xanaa ba mu ba mu jàll mooy fi ne taaha taaha sururi sarmadan wa junnati an il mamaati wal ada wa jannati taaha moom mooy sama mbégte ba faw mooy sama pakk mooy loo xam ne lu la jëm si ci yow yonent bi nga jàll sa diggante ak moom te moom te ku mën moom dara du agsi ci yow yàllaa ko garanti woon wallahu yaasimuka min annaas waxal li nga war a wax yaa ayyuha rasulu ballix ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafaal fama balaxta risalata wala yaasimuka min annaas moo tax mu ne moom nii moom ku jëm si ci moom yonent bi lay jàll si diggante ak moom ndax yonent bi kenn mënu ko jàll du ko yëxus jàll euh, ma da nga bëgg yonent bi man defe naa dugg naa ajana ba noppi ndax mbégte la ma ci yëg yëgu guma ko ci ajana dana guma ajana ba mu koy bind ba mu nii nee na soo ma da nga bëgg yonent bi la ma ciy yëgee la ajana neex neex yéen koy dàqal ndax lii laa gisagoon ak neex itam waaye nee na su ñu gisee noo fanaane it bëriwut lool ci sama dund yonent bi mooy sama sa mooy sama garab ci sama yaram ak sama xol shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi eh, bi ma njëkk a wax taaha sururi sarmadan wa junnati wa junnati an il mamaati wal ada wa jannati mi ngi nekk ci diwaanu alfulkul masxuur bi ma njëkk a wax shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi mi ngi nekk ci xasida goo xam ne fatxul fattaax fii matxil miftaax la ko tuddee kon boobu jëmm jooju su bis ba ñuy dàkk ak feeñam jamono jotee gannaaw bu ndokkee ne jullit yépp waris naa laal tuuti waaj nag jëm ca bis ba yàlla ñu ci àggale jàmm bokk na ci cër yàlla joxoon foofu laay jeexale yàlla néew na lu mu jaar ci aw ci alxuraan bu jaay ci suur nag daf ñuy wax kum doon am na fi ñuy waxee ne maa kaana muhammadun aba ahada min rijalikum walakin rasulallah am na feneen fi ñuy waxee ne waa muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul waaye ñi nga xam ne daf koy jox ndigal bu ne ko yaa muhammad du ko ne yabna abdillah yaa ayuha nabi ida talaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihin yaa ayuha nabi lima tuxarrimu maa axala allahu lak yaa ayuha nabi qul li azwajik yaa ayuha nabi inna ahlalna lak yaa ayuha nabi ba mu àgg wala mu ne ko yaa ayuha rasul mu ne woon it ku toog fa moom bul ko gën a kawe kàddu bu la laajee bu laajut bul wax te boo booy wax it laajal lam la tontu lam lam lay laaj boo ca xamee dara yam sa kepp yaa ayyuha allazina amanu la tarfacu aswatakum fawqa sawti fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd su ngeen koy wooye bu leen ko wooye ndax gis ngeen ni ma koy wooye man bu leen ma ko yaa Muhammad wala yaa ibna Abdillah rek laa tajcalu duaa rasuli baynakum ka duaa baadikum baxda waaye bu kenn jox loxoy naan it bu kenn jox loxoy naan yaa ayyuha alladina amanu ida najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa dalika xayrun lakum wa athar waaye bu dee nekk dañu day dal ngeen naan naa toog di ko nekk dem leen ba saa bu ko soobee bu ngeen jëmee gis ko bu doon jëmee naan bu leen ko téléphoné inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum laa yaaqiluun moo tax sayidina Xamsa radiyallahu anhu Euh, ak duggam ci lislaam mu ngi jaare woon ci dogalub yàlla waaye su ko yàlla jaarale daa fekk ñii néewal jullit yi doole lool néewal doole jullit yi bokk di leen rekk lu mel ne am xayalit muy waaw yéen ñi leen di waxal jëm seen gànnaay yi jëmale leen ko wéruñu gànnaay di mais li ngeen wax a tax mu ne xanaa li ñuy wax lu kenn xamul mu ñuy wax lu kenn xamul tax rek bu dee loolu la bis ni ki tey man dugg naa ci moom ay fan ñaari fan ñetti fan Seydina Omar dugg wala Seydina Omar dugg Seydina Amsa dugg ñoom ñaar daal ñoom ñoo jiitle te Seydina Omar moom yàlla doon na yonent bi doon na leen sallallahu alayhi wa sallam mu boole ko ci lislaam ñaar la yoon mu ne koo ci boolee baax na ba mu ci boolee Seydina Omar bu Xataab mu ne kii sax moo gën a baaxati far ndax la muy seen kàddu ko sañ comme boobu ñu xam la it foofu laa jeexale yonent bi sallallahu alayhi wa ku yërëm xeetam wi la ku leen ñeewant ku dem ci ay xaadis yi ba da fekk law la an asuqa ala ummati la amartuhum bi kada wa su ma am loolu nag ci sama xel laa leen digal ñuy def lii ak laa kon euh, bisam jub si na ci ñenn ñu bari li ëpp benn yaasal ne bis bu set boo ko ci dàkkee jàpp ko yàllaa ko yàllaa ko may loola yàlla nañu ci ak jàmm te yi sëriñ bi wax ne yépp ku ko ci def da ko am sëñ bi lu mu teg loxoom lu mu teg loxoom la teg lu mu tegoon bëtam la teg ci loxoom yàlla na nu yàlla dimbali te musul ñu ba faw ci pere seytaane ki ay galgalam